conseil présidentiel ngir sukkali région bu ci Sédhiou ñi ko doon xaarandi bu baax dina may rek askan bu boobee dëkk ñi woo njiitu mi Macky Sall ci seen alliance ci yooyee ñi mun cee lim désenclavement bu seen localité boobee. et de renforcer la dynamique de désenclavement amorcée. bëgg nañu it ngeen gën a ñongal politique désenclavement bile président ñun askanu Sédhiou ñoo ngi lay tàllal suñu loxo teg nañ suñu po ci yow ndaxte xam nañ ne di nga ci def sa kéemtulaay kàttan ngir mun a soqali suñu région bile. savent déjà que vous êtes en train de prendre les mesures urgentes pour permettre à la région de prendre définitivement son envol. ak jeunesse bu toll ci téeméer yoo jël juróom benn fukk ak juróom ñaar nga xamante ne seen at eggagu ñaar fukk ak juróom région bu Sédhiou féete rek ci ginnaaw ci fukk ak ñeenti région yëpp ñàkkum exploitation bu seeni ay potentialité bokk itam ci seeni ay jafe-jafe. avec toutes ces potentialités. ak lépp lu nga xam ne wàllum euh, gàncax la ak lépp lu xam ne moo tukkee tam ci suuf si daanaka sax gox bi mooy nekk fi nga xam ne fi la ñuy bayee wàllum ndaamaraas mooy ñaareelu gox bi nga xam ne mooy tamit daal di euh, joxe li nga xam mooy wàllum ceeb kon nag li nga xam ne daal mën na ko wax yow njiiti réew mi mooy suñu euh, meññeef gi nga xam ne moo jóge ci suuf sile nan koy exploité dafa néew lool. ñi naar ko amal nag juróomi fan séjour yu autorité yi ci région bu Sédhiou dina rek tax ñu dakkal seeni ay jafe-jafe ñoom ñee nga xamante jotoon na yëkkati seen i ay doléance mu soxal ñàkkum éclairage public ñàkkum ndox bu sell naka noonu.